dox di fo wey naa puurante wey naa mooy yàlla wey naa ma dem naa auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim aw nu ko yaa ma aynu wa bika nasta'iin bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina wa nabiyina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa xadim wa sallim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani xaw li mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi kii tey teewlu sunu site bu mag bii di Wilaya TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen jaajëfal baax a baax sëñ Cheikh ñoo ngi leen di wax bisimilah leen ndokkeel bu baax a baax nga laaj laaj yu am solo nag jëm ci bis bu màgg bi nga xam ne bis bu am taarix la ci lislaam waaye bis bu am taarix la ci yoonu murit di bis bi nga xam ni ci la jàmbaar ja Cheikh Mouhamadul Moustapha jële woon ku tedd ki Cheikhina Cheikh Ahmadou Bamba Khadima Rasulullah andi ko fii ci pak bu barkeel bii di jumaay Tuubaa ji bis bi nag tombe tey ak euh, wa muharram fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram waaye tombe ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci mois de juillet ñu di ko màggal nag fépp ci adduna bi waaye rawatina fii ci bàkk bu tedd bii di Touba. ñu nekk fii nag ci kër Cheikh Abdourahmane Mbacké Gaynde Fatma ànd ak daayira bi fi nekk di Ansar Dine 2 di benn euh, daayira ci daayira yi nga xam ne ñoo bokk ci section bu wilaya bu Touba. Euh, suñ président nag jox ñu ndigal di sëñ Modou Lo ci ñu dalal commission bi nga xam ne mooy waa communication bi ñëw fi ñu leen di sant baax a baax di leen gërëm ah bis bi nag niñ ko dooree mooy njàngum alxuraanul karim ak xasida niñ ko xamee ak ki ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi joxe ndigal jàng nañ fi bi ñu xëyee ak léegi lu war a toll ci ay ñaar fukki kaamil ak yu lu topp xam naa sas wi nga xam ne moom la euh, fédération bi joxeet defe naa ñu ngi ci boo buñ noppee xam naa ni incha allahu dina ëpp sax li nga xam ne moom lañ euh, bindoon ni daayira bu ne na ko jàng te mooy lu mat téeméeri kaamil bi ñu noppee ci njàngum alxuraan meek ñu ngi ko booleeg durus njàngum xasida xam naa ne buñ demee ba ngoon itam danañ fi yëkkati eh, eh, jàngum xasida seen Xaadim Gay mooy fanaan fii ci baas bi ah, bu ko defee looloo berndeet xam ngeen ni bokk na ci li nga xam ni moo tax bis bee jóg bokki taalibe yi ñu ngi ci waañ wi eh, ñi nga xam ne ñoo seq wàllu woowu nekk ci yëngu ñu ngi ci wàllu bernde yi ñoom itam bu ci kanamee incha allah danañ jox bokki bayen yeeg càmbeen yi incha allah ñu xewlu ba sant waaye daal bis bi daal bis bu am taarix la bis bu am dayo la ci lislaam am ko ci yoonu murit di bis boo xam ne Cheikh Mouhamadul Moustapha dégg nga neen lim ci dëhale te nee na da cee juboo ak boromam ci képp koo xam ne fanaan nga fi ci dundal ko te teg ci na teg ko ci lu baax jàng alxuraan jàng xasida sikurullah salaatu ala nabi lépp lu waay man ci lu baax fanaane ko fi ba asamaan set nee na mu set nga wecc ci ay bakkaar ba mel ni bis ba nga feeñee ci sa ñaari waajur boobu bis nag defe naan àdduna ba mu daj ku ko doon wër doo ko fi gis te it Cheikh Mamadou Moustapha kenn ku ne xam na taxawaay ak dayoom bi mu am ci lislaam am ko ci yoonu Serigne Touba bi njëkk a wuutu Serigne Touba liggéey liggéey bu rey ci lislaam liggéey liggéey bu rey ci yoonu murit ba tey jii fii yoon wi agsi tey mu agsi fi te ñëpp xam ni nekk gi Serigne Touba nekk ci biir jumaa ji kat mooy mandargaal ak di wane ni dayo bi Touba am ak yoonu murit am ko loolu rek mooy mooy li nga xam moo ko waral te Serigne Touba kat ci ak nekkam waxoon na Serigne Mouhamadul Moustapha ni ko bu ngeen fexe ba ma dem Touba day lépp lu ngeen tàmbaleeti dinaa ko eggale waaye bu ngeen yaafu see ba ba demuma Touba dina mel ni demaluma leen woon fenn ñaari kaddu yooyu nag de kaddu yu am solo yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la ci murit yi ak yoon wi ci lislaam bi kon nag ñu xam ni Cheikh Mouhamadul Moustapha moom képp koo nga xam ne am murit nga wala jullit nga rek amel nga ko njukkal loo xam ne defal na la loo xam ne mënaloo ko sa bopp kon nag ñu ngi sant bu baax baax di leen gërëm ci ñëw gi waaw nga jërëjëf jërëjëf laaj bi am na solo lool euh, comme ni nga ko laajee mooy centenaire bi di téeméeri at bi Cheikh Mouhamadul Moustapha indee ku baax ki fii ci jumaa ji ak tey di nag téeméeri at lépp lu ko am rek xam nañ ni am nag yokkute bu baax a baax a baax kon nag képp koo xam ne fekk na la fi te xam ni am na ñu ko bëggoon a fekke te fekke wuñ ko am na ñoo xam ne fekke nañ ko te xañ na dootuñu ko fekke kon nag bisub gaawtu la bisub euh, jëkkante la ci lépp lu baax loo xam ni nit mën na koo def ci alxuraan jàng alxuraan wala xasida wala yor sa kurus di tudd yàlla ak di fàttaliku jàmbaar ja Cheikh Mouhamadou Moustapha ndax li nga xam ni mooy mission bi nga xam ni buñ bu ko lislaam santoon la adduna sant ko tem ràmpali ko mission boobu wax dëgg yàlla képp koo xam ne rek ab jullit nga ameel nga ci Cheikh Ahmadou Moustapha njukkal kon nag nañ profité bu baax a baax te xam ni bisub njariñ la bisub yokkute la bisub ndam la bis la boo xam ne nag murit yëpp ñoo ko bokk waaye nag dafa mel ni Cheikh Ahmadou Moustapha la ko Serigne yàlla jagleel akum njabootam ñu nekk ci nag di ko taxawe taxawaay yu mat sëkk fépp foo dem ci buntu këri Cheikh Mamadou Moustapha yi tey jii Eh, allahuma salli ja ña nga fay jolli alquran jaa nga fay jolli zikrullah jaa nga fay jolli te defe naa ni lépp loo xam ni ab jullit a nga koy def ci àdduna rek la ca war a jiitu mooy njàngum alquran ak jàng xasida ak zikrullah ak eh, ay tasbihat lépp loo xam ne rek aw yiw la bu mën a jëriñ nit ki fii ci ak dundam mën koo jëriñ bu ëllëgee loolu rek mooy li nga xam ne moo waral bis bee jóg centenaire bi nag wax dëgg yàlla defe naa ni dina wuute lool ak màggal yi fi jaaroon xaj nag màggal gu ñëw nag dana gën a am dayo waaye bii dafa daf cee rawati ndax gis ngeen ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba dayo bi mu ko jox ak jëmmal gi ko jëmmal te mooy yëkkati alal jox ko ñi nga xam ni mooy njabootuk Cheikh Mamadou Moustapha ñu def ko ci waaye defuñ ko ci defuñ am anam woo xam ne képp koo xam ne da amoon kumpa ci bis bi wala nga amoon kumpa ci Cheikh Mouhamadou Moustapha defe naa ni am nga ci xam-xam bu wóor ni jëmm a ngi nii joo xam ne ju waajal la jëmm a ngi nii joo xam ne tànneef la jëmm a ngi joo xam ne kañu ko duppee di rasulullah sallallahu alayhi wasallam jël na ci moom ay jikko yu rafet yoo xam ne yu day nit ki mu di ko roy la ak giirub dundam ñu ngi sant bu baax a baax sëñ Cheikh di leen gërëm bu baax a baax ci teexawaay bi ak teewaay bi jërë ngeen di fo wéy na puurante wéy mooy yàlla wéy na ngir mbër